bawa man la Ansoumana john di njiitalu kuréel di ñuy wax ASSAMM di kuréel gi toppatoo ak ak lefu ñu ame feebaru xel. waaw ci loolu noonu jamono ji yëngali xaw ca parcelle waaw loolu nag yow tey boo ci doon antu lan lay doon. Euh, li xew Parcelles Assainies euh, dafa waroon na tax Sénégal yëpp taxaw Sénégal yëpp taxaw euh, ñu ñu jàng lan moo ñu jàngat lan moo waral jëye yi bëri si réew mi depuis ay at lan moo war a tax ban taxawaay la askan bi war a am si wàllu jàppalante Euh, ban taxawaay la askan bi war a am si ñu amee feebaru xel si ñu jël drogue si ñuy naan sàngara si askan wi nak la war a doxee. bu fekkee ne dañ ne président Macky Sall euh, sunu sunu mbir mi euh, faalewu ko ankay ah faale na ko waaye ca mu gën a yéesee parce que nit ñaar la da koy sopp mbaa nga bañ ko yëpp ci faale la. maanaam kilo bañ faale la ki la sopp faale la kon président Macky Sall daf ñu bañ ñun dafa bañ dofi ci mbedd mi dafa bañ dafa bañ sénégalais yi parce que président Macky su bëggoon sénégalais yi diggantaan du ñu gàllankoor ñun parce que gàllankoor ñu ñun nii mooy yéen sénégalais yi toog leen dof yi di leen rey di leen fagaagal yéen dof yi toog leen di dee ci mbedd mi man Ansoumana Dione sama kër ngeen ma fekk man feebaruma maa ngi sant yalla dama am sama soxna am samay dom, amoon nak yene ci rewmi kon bu fekkati ne président Macky Sall daf ma def bi mi xewé dafa en conseil des ministres ne gouvernement am nañu toppatoo yaayu xalé yi ci walu xel ndigalam bobu man mako man ci état bu Sénégal état noonu lay doxee. kon yaay xale yi mi ngi ci yow ba léegi. mi ngi ci sama loxo ndaxte man maa ko dem seeti ji maa demoon jaala ji da dama demoon jaala ji parce que tey ñëpp war a jaala ji parce que benn jigéen la bu ëmb juróomi yoon wasin juróomi yoon yàlla jëlandoo yépp ci benn saa lii muy kilifa diine muy kilifa aada muy muy muy artiste muy. muy président Macky Sall muy première dame Awa Kolsek, euh, ministre de la santé di euh, di euh, présidente conseil économique et social Aminata Tall di Anta Sarr délégué à la solidarité nationale di Maria Massar, ni ñëpp tay, dañu woon sol seen en tant que jigéen dem defal ko dem jall ko ndax métit bi ko dal te mu dal ci kaw réew mi ñep lolu bi amé man bi ko jàll jee ba ma gis ndaw si ma gis ne kii su ma ko yóbbulee musiba am ma jël ko ànd ak seen waa kër yóbbu ko fànn professeur bi ko dikk seet professeur Aïda la dafa ma ne yow noo xamee ne kii soxla na ndimbal mag dama ko xool wax ak moom xam ne kii su ma ko indiwul musiba am mun ne ma Ansu tu bien fait nga indi ko parce kii boo ko indiwutoon musiba bu rëy moo naroon am. léegi jamono ji nan ko gisee. mu jóge fa euh, dëmb bakki démb woon naa ko téléphone. ñu waxtaan waxtaan nañu maa ngi waxtaan maa ngi jokkoonte ak moom téléphone euh, mi ngi ànd ak dal euh, dañ ko defal ay perfusion mi ngi ci faj boo xamante ni faj bu am solo la parce que wax naa ko démb seen waa kër nee naa ko c'est sa vie qui est en danger bakkanam ndaw seesu tey jii moom ci boppam laa moom bu sañoon tey lu ko gënal dëggantaan ndumbe boobu noonu mooy mu fekk ay doomam. loolu mooy li ko gënal kon ku ñu war a surveiller la ngir ma bañ a xaru te loolu mën na ñàkk waaye situation bi mu nekkee rek mën na ko faat moo tax euh, bi bi ñu ci yóbbee fan dañ ko defal ay soins intenses waaye loolu rek doyul lu mel nii su amulee lu mel nii su amee dafay jaadu kilifa yi ngànk réew mi kilif xalif euh, xalif généraux yi

bu ko bu demee ci nit rek daanaka xel mi itam dik deñ na ànd naa xelam nag waaye sago ba ma fa jógu woon euh, bi ma ko dama ñëw ñu ne ma dem ba lekkul waxul ma ne leen may leen ma ma gis ko ñu évacué néeg bi yëpp ñëpp génn ma nuyu ko mu fay ma ma ne ko yëngali xew mu ne ma waaw ana say doom mu ne ma dama bëgg ñu ñëwaat dama bëgg damaa bëgg samay doom ñu ñëpp si waat samay loxo mané kon entretien bi yem na foofu ma génn ñu ma lan la ma ne leen parce que j'ai compris que elle est sous le choc amatu mon pour continuer ak mom déjà li gënoon jafé moy ma wax loko mu wax waaye comme gis naa ne elle est sous le choc mooy automatiquement nañ ko yóbbaale parce que su ma continué discussion bi ak moom mënoon na fa mënoon na ñàkk bakkanam ci sama lox wala sama kanam parce que xam naa choc lan lay def donc automatiquement ci laa woo ay Sylla la si ndox taxi pour gëlé ko taxi bi dañu sonnon mais bañu duggé fan consultation externe clinique Moussa Diop il a fallu que ñu dem jëli ambulance parce que mënuta ndox euh, clinique euh, consultation externe ak clinique bu Moussa Diop dañu jëli ambulance bi ko ci parce que ñoo parce que lépp a may taxaw parce que li may expliquer moom la wax parents yi vous risquez de perdre Ndumbé parce que son cœur peut s'arrêter et si le cœur s'arrête il décède automatiquement te bés bu ñàkkoon tey bakkanam tey jii yàlla nañu ci yàlla musal ci darajay Seydina Mohamed bu ñàkkoon bakkanam papay xale yi dafay dafay daal di dof ci saa si ne papay xale yi tey jii dooleem mi ci Ndumbé c'est parce que Ndumbé moo fi nekk que ñu foog ne dëgër na waaye moom moom tamit mbir mi laal na ko jàpp na ko xëj na nag mënagut a feeñ léegi nii waaye laal na ko waaye euh, euh, dafa amee ne euh, moom moom dëgër laayam ndumbe la tant que ndumbe kenn du ko xamal dara parce que ndumbe aussi tey tey jii force am force am dëggantaan mooy papay xale yi papay xale yi ak nag toute la communauté toute la société dama koy waxaat ndumbe dafa soxla def nañu benn communiqué démb di wax kilifa yu jigéen ñi di wax kilifa yu rew mi di wax toute la république képp ko am kaddu nga dem fekki ndaw si fa mu nekk nga defal ko apporter ko un soutien moral moral et psychologique parce que actuellement à Fann euh, mi bénéficier d'un soutien psychologique mais soutien moral bi lenen la moy madame le ministre de la santé professeur Awa la première dame le président Macky Sall mu déplacer wu mu dem fekk ko gis nga buñ ko defulé ëlëk bu musiba amé dañu am gatché responsabilité dana engagé wu à 100% Je suis dafa am lu solo wax. Mhm. nga na Sénégal na Sénégal est-ce que japp nga ne di def lool nonu ñi ak seen xel. xam nga mbir bu amé koy man waxna ko ba leer na yu chance. pour dégg ko ci wàllu audiovisuel def naa ko wax naa ko démb gis naa benn site internet en ligne bu ko répandre waaye euh, gis nga li xew Sénégal fii jamono yi nekk nii wala euh, fii ak ñaari at ci gannaaw wala fii ak ay at ci gannaaw lenn rek lay wone mooy sun borom moo téye yërmandeem dafa téye yërmandeem yàlla bu téye yërmandeem ay musuba euh, dafay daal di bari waxoon naa ko bu yàgg ba ñu reyee présidente conseil économique et social waxoon naa ne mbir mi du taxaw de du taxaw lu jëm kanam la wax nañ fi lu nekk te tewul mbir mi saafaraw nee na yàlla dafa am na am na lu naqari borom bi am na am na loo xam ne moo naqari yàlla te yàlla kenn mënu ko laaj lan moo la naqari waaye li leer ba leer moo di ne yàlla boo xamul lan moo ko naqari mais xam nga lu koy bégal dama ne saafara bi tax tey jii senegal am jàmm mooy ñu jéem a bégal suñ borom lu leer ba leer mooy téye na yërmandem amaana nag yërmandem su ko téye rek am na lu ko naqari lu ko naqari mën na nekk ni ñu tooñee ñu amee feebaru xel mën na nekk injustice foo xam ni kilifa yi réew mi tey ñu ngi koy teg ci kaw askan bi mën na nekk benn nit yàlla boo xam ne nii am na ku ko doy dil mën na nekk n'importe quoi waaye nag lii leer mooy bu ñu bëggaloon tey jii bi ñu béggaloon tey jii yàlla si toppatoo ñi amee feebaru xel nekk ci mbedd mi walla ñu toppatoo handicapé yi wala ñu toppatoo xale yi xale yi taalibe yi wala ñu ñu ñu seet rek foo xam ne ni buñ ko defee borom bi dana kontaan loolu loolu rek dañ mën def pour que balayi yi mën a wàcc. mais jàpp nga ne ku tim nit ray ko jam ko paka wala euh, rendi ko kooku noonu ndax an nak sagom fofu nak moy benen mbir fi ngay waxee ni fofu amna waxon na bu yag bu yag ne sénégalais yi en commençant par le président de la république son excellence monsieur Macky Sall sénégalais yëpp ño am problème bop dañ am problème de santé mentale manam nekkul ne dañu dof de déedéet mais àdduna bi ni muy dawee internet bi soxla yu bari yi euh, ñàkk gu métti gi pauvreté bi imagination yi nit ki di def euh, film yu film yu métti yi contenu des médias yi yooyu dafay pousser nit ki simil saala ñu saagante ndey simil saala ñu dóorante simil ak saala ñu jamante paaka paaka yi tamit wax naa ko gis nga chinois yi dañ fi dugal ay paaka yoo xam ni cent franc lay jar kii jigéen la xam na li may wax paaka yi dañu dañu envahir marché sénégalais bi te ñaar fukki dem lay jar paaka yi ndaw la xale yëpp tey moom la ñu doxantoo ba tax na léegi xale yi xeexatuñu ñun bi nekkee xale dañ daan xeex kurpeñante ñu toj sa bakkan wala ñu toj sa gémmiñ mais kenn du jël xeer di xaañ sa morom ñaar bu ñuy xeex dañuy bàyyi ñu xool dañuy xeex ba pare ngeen joxante loxo ngeen dem mais tey xale yi tey xeexatuñu da dañuy reyante nit ñi dañuy reyante ki jël pistolet xoos na sa oto oto bi xoos na ngeen taxaw di wax nga génnee pistolet nga ne ko dinaa la rey mu ne la sa sa sañuloo ma rey nga tiire benn bal ci kaw tiire ko ci kaw mu daanu dee xam nga ne ñooñu néew ma ne dañu dof de mais seen xel moo am jafe-jafe ndaxte ku xelam tranquille ku xelam normal ki ñuy yar ki am diine ki considère moromam comme boppam Koku, du gaañ moromam kooku dafay fexe ba nit ñi di ko jëriñoo si teranga. teraanga moom dafay nekk teranga pour nit ñi waaye du nekk mukk loraange pour nit ñi man Ansoumana Dione loolu laa gëm dama sacrifier sama aduna pour sama rew pour ñi amé feebar xel bu bu ñii di jànge bi ñi doon jànge journalisme ñi dem États-Unis ñi dem France ni def tailleur ni def police ni def gendarmerie ni def politique man damaa choisir nekkal askan wi ci ñi me faire xel booba légui c'était en 2000 ma amone possibilité dem États-Unis jël sama passeport xotti ko ndax dess ci réew mi parce que xamné dama am mission pour sama réew en 90 la xotti sama passeport en 90 la xotti sama passeport en 99 la am xalaatu taxaw ñu amé feebaru xel en 2000 ba tey sama lépp ci mbirum feebaru xel la kon tey jii euh, ñooñu di di faat ay bakkan ñu ci bari ñenn ñi sax ay dof lañu moo tax ñun dañu defoon benn benn benn séminaire hôtel Ndiambour woo ay kilifa ba ñu màggalee samedi alti euh, samedi dimanche altine ñu woote ndaje bi le 21 novembre ñu jàngat lan moo waral rey yi ñu jàng ñu jàngat it lan mooy solution yi ñu jël documents yi jox ko.

bu dañ jël ab yat dóor nit assommé ko wax ji yëpp mooy diw danaa ko rey danaa ko rey loolu xale bi di ko dégg tout le temps d'ailleurs sax am na ci boo xam ni danaa la rey danaa la rey le lendemain ci la faat ba kanam ci ci la ñu faat euh, faat mata faat mata faat mata mata Njaay donc yooyu ay mbir la yoo xam te ni euh, dañ ko war a seetaat xaalis bi télévision yi di gagné nañu xool li muy lor askan wi tey jii il faut que ces sénégalais bi ñu tabax jikkoom ñu tabax jikkoom tabax doomu adama bi motax sax lolit it am la primeur dama am réunion légui quelque part fi à Rufisque parce que altine bi di ñëw bu soobee yalla altiné bi di ñëw dama fas lancer ben coalition politique bo xam ni ben projet de société lay am bu tourner autour de l'homme tabax nañ ay pont tabax nañ ay tali defar nañ fi lu nekk régime fi jaar yépp dañ amone programme mais amul kenn ku ci am programme nit ki ñun nak nit programme bâtir un Sénégalais nouveau pour conduire le Sénégal vers le développement qui est mom la suñu mam mësa bëgg ñun il faut que ñu tabax nit ki d'abord

donc euh, Lolo ci ci wàllu xel d'abord il faut que tey jii sénégalais yi pour ñu pour ñu gëm pour que ñu développer réew mi il faut que xel mi ñu mën ko defar xel mi euh, defar ko nous waral ñu nous wu ñu am yar ñu am yar ci wàllu transport ci bépp fànn presque tey jii problème Sénégal lu baree baree baree baree bari indiscipline moko indale indiscipline boo xam te ni si ñëpp la nekk nag parce que koo wax mën na la man sama mbir top top banam kenn toppatoowul sa morom ku nekk yaa ngi toppatoo sa bopp te tey jii comme ni ma ko ba baki démb et toi le ciel t'aidera s'aider c'est aider son prochain man Anso su ma bëggee dimbale Anso damay dimbale Tunkara ci ay soxlaam ci ay bëgg-bëggam loolu la ñuy tuddee dimbale Anso waaye Anso dimbale boppam mooy Anso na jël xaalisam ci boppam déedéet dimbale Anso naka lay dimbale ko mooy mu dimbale Tunkara lan ma waral léeg-léeg ñu bari jàpp na man ans man bëgguma dara waa ans yow dof yi rek ngay toppatoo dofi yi may toppatoo xamuñ ne sax ne maa ngi leen di toppatoo c'est parce que toppatoo sama jëmm ji may toppatoo dof yi parce que dof bi ci mbedd mi sama jëmm moo tumaanke ci mbedd mi sama jëmm man mii jëmm doomi aadama jëmm euh, ji jigéen mu gis moromu jigéen dem def yaramu nen taatu nen du am jàmm tànk taxawul wodd ko doo ko continuer góor kay ma gis moromu góoram gis ay awram ci biti mu mu romb ko dem parce que amaana sax solal pantalon dafa jafe waaye bon wodd moo gën a yomb donc pour wane la ne nit ki boo bëggee dimbale sa bopp da ngay dimbale sa sa morom président Macky Sall dafa échoué dëggantaan dafa échoué man munul taxaw sama kanam amul benn sénégalais bu mën a taxaw ne président Macky Sall liggéey na ci réew mi. lam waroon liguey liggéeyu ko Ablaye Wade dafa tabax ba doyal dafa di concurrencer Abdoulaye Wade lolu moñu ñu lolu moñu sonal ñun liñu gëm ñu ñu ñu defar sénégalais bi nga si jikko si walu yaram sénégalais nous wuñu couverture des universelle wax nous ñom ñi koy wax parce que bala ngay wax couverture nga dem hôpital gis médecin gis infirmier ñu man la dans tous les hôpitaux tey jii boo fa demee amul garab amul dara an couverture maladie universelle la lan la ñu rey nit ñi fu mu ne leen cotiser dugg ci mutuelle yi mais couverture maladie universelle du mutuelle mutuelle mo moo wax nekk dernier rempart parce que tey jii booy interview bi pour mu nek da ngeen tek seen lepp jox jox ma micro ka caméra bi tim ma mais man suma taxawon ci gannaaw caméra bi limay wax ken du ko dégg balaa ngay wax affaire Euh, mutuelle dafay fekk mu leer ñëpp ne hôpital boo dem lépp nga fa hôpital boo dem dara amu fa naka ngay duggee ci ay mutuelle mm-hmm.